asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo gi fii ci rokaatu Touba di pàkk bu yaatu boo xam ne nal nañ fi garage mu war a doon gare routière bu yees boo xam ni mooy wuutu bi nekk ci Touba. liggéey boobu nag doonte tàmbali woon na bu yàgg ñaar fukki fan ak benn ci weeru zulhijja dëppook ñaar fukki fan ci décembre atum 2008 Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Abdoulahi dikkoon na. teg si xeeru jàkk ji ci ndigalu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ginnaaw boo xamante ni sëriñ Baara Bousso imaam natt na xibla bi ba ñu rëdd jàkka ji. mu àndoon itam ak sëriñ Cheikh Basirou ibnu sëriñ Abdou Khadr Mbacke sëriñ Moustapha ibnu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara ak mbooloo mu dakku ginnaaw bi nga xamante ni jublu na ci teg xeer wi lii mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ Cheikh wax na ko fa ci turu sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mi nga xam ne moo ko yabaloon. nga liggéey bi ñu ngi koy rafet lu baax dañuy rafetlu te di am yaakaar nun nag li gën di sunu yitte rek mooy ki nga xam ne mooy sunu mag nekk fi di sëriñ Touba ci nun ñu ngi ñaan rek yàlla yàggal ko fi ba lépp lu mu bëgg a def mu def ko na yàlla def ci moom daal loo xam ne kéemaan lay doon goo xam ne dana bett ñëpp loo xam ne daal menn xel mos koo foog menn xel mos koo xalaat ci doomu aadama ci aw fanam loolu rek daanaka muy suñ yitte liggéey bi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñaan rek ñu ko tàmbalee mu egge noonu te itam muy tàmbali ay liggéey di ko àggale di tàmbali di àggale di tàmbali di àggale lépp lu mu tàmbali rek na ko eggale ci sagoom ak ci xelam dara bañ ko dog dara bañ gàllankoor loolu daal daanaka moo gën di suñu yite mooy sama mag mooy sama Sëñ Tuubaa waaw mooy sama Sëñ Tuubaa laa ko jàppe mu ngi nekk ci gannaawam rek mu ngi nekk ci gannaawam mooy sunu mooy sunu kilifa mooy sunu lépp ndax moom Sëñ Tuubaa rek lañ ko xoolee mais Sëñ Tuubaa lañ koy xoole rek mooy sunu lépp lu mu wax rek noo ngi ci loolu lu mu tere bàyyi nañ loolu te sax fa sunu yéene nekk ci lenn loo xam ne daf daf na ko waaw loolu moom waaw loolu daal moom noonu ak taali bi yëpp daal noo ngi ci loolu képp ku dégg loolu nanu dimbale jàppale nu ci loolu noonu daal noo ngi ci am amuñu ñaari baat amuñu ñetti baat